may doolee sant yàlla nag di ñaan si yàlla lii fi am te bal tàkkul di gërëm autorité yi ndax mënoon nañaa taal ay bal sunu njaboot loru wante ñu am tolérance ba joxewuñu ñu ñuy doolee sant yàlla nag lii fi amoon ñàkk a waxtaan a taxoon masunoo yëg tin waa dëkk bi yëguñu xamuñu am ñu ko yor di doxale li ñu neex wante bi waxtaan amé tay ñu or responsable yu bari ñu tok tok deglu njabot gi njabot gi wax suñu dom jaral ko mu déplacer ñu fekk sinu ñu oo responsable mbar mu ne nga ñew tok ñu déggo déggoo cadeau sama yoro ngañ touru na ndax bi njabot gi taxawé ñaan ma mënatuma dellu ginnaaw wante samay rongoñ taxawaayu Sénégal ma ko gënal te it dafa am loo xamee ne bu kilifa ku nekk taxawee di la ñaan danga nga war a maye wante tey ma def si par force moo dul dëgg moo yoon boo gisee mbuur riposte loolu moo tax te dañu demoon ba sa góor noonu ne juróomi nit bañ ci mbuur wante ku gis lii xew xam nga ne juróomi nit bañul ñuy doon leen ñaan si yàlla nag di doolee sant ndax Saliou Samba démarche bi mu si def bu fekkoon ne noonu la njëkke woon ngoon duñu yëg si fii xaaxaam diisul de wante xajul si ñaari tuñ ñuy doolee ñaan si yàlla lii nga xam ne moom la ñu doon ñaan mu teewoon ndax ñàkk déggoo si kàddu xale yi wax nañu ba d'accord ni ba maye nañu ko wante nag fi nga xamee ne fi la gaal yi war a jëm nañ ko protéger protéger bu baax boo xamee ne defal nu benn barrage si biir géej boo xamee ne bu lu mu sàmbaraax sàmbaraax ginnaaw su jëm tefes projet bi may nanu ko si ña def ko ni ñu bëggee te defal ni li ñu bëgg nu si aar gaal yi gërëm commissaire lay mi nga xamee ne daf ma def baay ma def ko doom ndax su joxe woon mu ñaaw wante daf ne dal leen ñu ko doolee sant di ko gërëm ndaxte lii xew plus de quinze ans noo commissaire lu ngi defar relation di ànd guddeeg bëccëg ñoom Ali Diagne ak ñoom Makumba ak ñoom ñëpp ñu daan ànd di def guddi ñuy doole ñaan si yàlla lii fi am nag yàlla na fi yem te ñuy ko gërëm di ko sant moo autorité am yëpp te xale yi ñu ñaan ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen ak waa njaboot ñuy doole sant yàlla te lii xew yàlla moom fi amati te képp kuy waxati na nga yëgoog araw sunguf lañ koy def wante sànqal ak cere bokkuña wa salam tay dañu wañ seen loxo parce que da ma ñaanon sax ngeen ne ñu xaar ba ngeen waxtaan ak dem gën a waxtaan man ma lay wax ne non non mënu ñu leen ko may yeen yaa leen kilifa yi d'accord ngeen jël leen seen parole ngeen wax ko après dem tok waxtaan ak njabot gi njabot gi dañu wara suivre li wax parce que tamit li ngeen doon am comme comme comme titan titan nga yépp ci dossier bi andi na leen dossier bi won na leen ko point par point seen xel dal na ci yu bari maintenant le ministre des pêches tamit rassurer nañu ba ci dossier bi li mu ngi ci biir du usine de farine de poisson qui ci un ci projet bi du affaire usine am ci projet bi pêches lu nous la bi Japon te prix Japon ak prix Europe bokul donc suñu commencé exporter Japon pêcheur bi jën pulpe bi bi jaay bi napp pulpe bi dina ko mën a jaayee prix bi gën a cher matériel bi tam dina ci mën a am plus de euh, su koy jaayaat euh, bénéfice ñun tam ñi nga xam ne ñun ay exportateur lañ yore ay usine jën suñ koy jaay tamit prix bi ñu koy jaayee ak bi ñuy jaayee Europe bokkul et puis bi del ci waat Sénégal devise boobu Sénégal tam da ciy da gën da ciy gën a jëfandikoo donc donc chaîne boo xam ne ñëpp ci naka seen bopp donc loolu nag ngëneel la te son excellence président Macky Sall suy andi ngëneel ci ci nit ñi bëggul mu mujjee ay fitna mm. fitna tax ko jóg loolu tax mu yónni ñu pour ñu waxtaan ak yeen giñ leen wax projet bi lu ci nekk ñu teunk ko ta ah contane nañ parce que ba ñu leen waxee projet bi lu ci nekk ngeen xam ko bu baax euh gis naa né am nañ jamm ñëw na parce que ñaan nañ leen may ngeen ñu pour ñu continuer projet bi mun na continuer te inshallah allah wax rek dinañ leen accompagner ñu ànd ensemble nak seen tank suñu tank ñu continuer projet bi ba ngeen xam né projet bi pour yeen la parce que soy xol ci projet bi dañu né

dinañ leen accompagner léegi nag gal yi euh le ministre de la pêche euh jox nañu assurance te gis na ko ci tamit ci ci ci contrat bi ci dossier bi que ne dinañ leen jox benen place bo xam dañ leen ko aménager pour que gal yi fu don doon su leen wat muy ñu dem ci kaw ñu mën leen a denc fofu ngeen mëna def seen réparation ci euh, et puis tamit nga xam ne gaal tamit ndox mi duko duko du donc dinañ protéger zone boobu ba nga xam ne gaal yi dañ fa mëna nek ak jamm ak salam ngeen def leen réparation tegal leen ci ndox mi ñu demaat ñu demaat liggéey. euh xalé yu ñu jàpp nag dañ di xam rek luma wax rek euh président Macky Sall ak wala état musul am mbëbët na day ñew pour note ay askanam su défé dara rek c'est parce que parfois situation bi moko laaj. té nak dama contane ba ma si waxtan bépp yaa ngi doon jégalu son excellence le président Macky Sall di jégalu.